vingt mille franc la moom dix mille franc ndax liggéey naa fi quinze jours te quinze jours de sax yeggale wu ko da jours bi yeggale ma daan bay jox kii bi. day ko ma daan ma yàgg. ñàkk rab yàgg bi lan la sa da ngay am ay rab wala lan la. wala yaa bëggul liggéey bu bu bu metti. déedéet dama war damay war a fomp comme ça bu ma xëyee bale ba pare dem toog fee taal musique bi fecc fecc fecc daal di ko fobeere <laughs> léegi sama ndey. te eh, doo ñëw dem marché ma ne ko damay ndékki ba pare nga ndékki ba suba ba ma mën ndékki damay yooyu noonu léegi waaw mu problème dama daa ndékki ma su ma ñëwee nday defal lii ma ne ko lu ma def lii lii laay def <laughs> loolu a tax duma yàgg fenn fu ma def du dàq ma. kon yow xam nga ne li ñuy dàkkee li tax ñu lay dàkk ci yow lay jógee. xam naa ko. te ba tey tubaab ne ma munoo bàyyi liggéey nga toog rek te noppal sa bopp foo dem liggéey fa ñaari weer bàyyi. ñaata lañ la daan fay. ne fay ma vingt mille man su ma fay bu naan kii ne vingt cinq mille la woon. ah vingt cinq mille bu gën a mag mais bu nekk liggéey naa ko jaay naa moom jaay fourchette bu nekk jaay naa ko. la tissé sax jaay naa ko. lan tissé ay tissé. tissé tissé tissé comme ay vax. ah tissu. waaw kay. waaw dama jaay naa ko. dama daan yanu dem marché yi dem di jaay. c'est bien. bëggoon naa liggéey mais xaw ma woon na comme ça ni ñu koy defee. yooyu noonu waaw waaw mais mais am nga expérience ci ci liggéeyu kër. Mhm. nan lañ la daan traité foofu. lan nga mës a dund loo xamante ni metti na la loo xam ne jógewul ci yow dem ci maire mais ci maire ci nit ki ngay liggéey lay jóge ñëw ci yow liggéeyu kër gi nga daan liggéey waaw ndax nga xam ni ah comme ça nii ngay liggéey yooyu noonu te yow da da ngay bëgg jàppale sa bopp ndax mbindaan du jàmm du def dara mais ñoom dañuy tegoo ne mbindaan comme ku ko def rek da ngaa pauvre wala leen mhm. te du loolu mhm. daan sa doole kasa la mhm. mais ñoom duñ ko jàppee loolu daan nga añandoo ak ñoom reerandoo ak ñoom. Eh. wala yooyu yëpp amu ci woon ku man ma defal fee ne man la fay ma sama xaar ak ma gaaw ci lool. Mm-hmm. fay ma sama xaar sama ñu fi. musoo musoo ko bas comme comme des fois ni ñu wax di ngay dem ñuy vérifier di xool sa sac ndax dugaloo dara wala ñàkk dugal am na ñu bëri loolu la ñuy def seen. moom moom fu ma liggéeyee dañ may wóolu ndax man melu ma noonu. ok mm-hmm. ma moom. Mm-hmm. mu koy teg fee. ba nit ñi wax ak nii yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci kër wala nekkoo ci kër. nii nii non bàyyi naa bu yàgg. ah bu nga siiwee amul kenn ci ñi la woo ci ñi nga daan liggéeyal bëgg nga ñëwaat. non mm. dañ may woo naa ma waa kon comédie ngay def yooyu noonu ma ma kon yaa ma la si yàlla jàppale. Mm. kon daal ba instant bi ñu toog liggéeyoo. dafoo dara ba mu ba mu nga jëy liggéey moom yaa boo boo buñ la doon wax lan nga bëgg a liggéey nii lan nga wax lan ngay wax ci lan nga bëgg a dem. liggéey bu baax rek boo xamante ne dinaa ci am xaalis rek. Mm. Mhm. bu ñu la yóbboon ci centre d'appel ngay làkk français ak tubaab yi di nga ko def. yii moom la ma mën français. waaw kon moo tax nag léegi tey bu ñu la ne woon tey liggéey ngi nii ban ngay bëgg def ci lan nga bëgg a demee ji. Euh, liggéey. bu ñu la teg ngay commerce ay place ak yooyu noonu wala comédie. waaw théâtre. yooyu ah. noonu série mm. mhm. en tout cas daal ku la jàppale nga jël. wesh. wesh. Mhm. ok léegi nag ñu ñëw ci wàllum waxi dof. Mm. waaw ah, lii dama bëggoon ñuy waxtaan ci mais léegi ñu ñëw ci wàllum waxu dof parce que tey sénégalais yi bu ñu la bëggee dina la touché tuuti moo tax muy waxu dof ñoo ci wax immature dépp nga def émission ah. di déclarer Pawlish hmm. ne da ngaa bëgg carrément Pawlish nga dof yow yaa wax loolu man maa wax loolu. li ngay wax da nga ko sentir sa xol wala lan. ma biir xol la jugee jàpp sama noppeeg sama bakkan yi di ko ñurub ñaar bi man maa bëgg koo mu ko bëgg. buku terbaik deh baik terbaik deh baik one day jooyu Mali boobu non non. bii du jooyu Mali boobu jooyu français. <laughs> mais jooyu français mais yàlla na. mais lan moo neex ci Pawlish tey. man dama mosul gis góor gu ñaaw comme golo. <laughs> mais yàlla baax na. ok. mais tey Pawlish est-ce que moom d'accord na ba nga ko waxee bëgg nga ko. billaay dafa kontaan mais suñu couple moo ko couple boo xamante ne dootul amati ci àdduna. lu tax dama ko bëgg ndax bëggil bi ko bëgg daf maa jàpp ba instant bi damaa traumatisé. ah affaire boobu noonu man moo ma jàpp. lan moo lan moo la kii. damaa traumatisé. Ah. dama ko bëgg dama ko bëgg franchement parler mais dama ko bëgg. nga bëgg Pawlish. oui. kon tey bu gars yi ñëwoon rek di nga dem sëy ak moom billaay ba bu mu joxe na joxe ñeent ak tamaas rek ma dem sëy ji na ma buux rek ma dem man instant bi mën naa sëy ak moom rek loolu rek laa bëgg mais tey Ouzin woo na ma sànq dama fifi man kat dama dégg hmm. ne Pawlish ak euh, Dayloo dañuy waaj a bëggante hmm. Ouzin Keita te moom nee na yàggoon na la teg bët depuis sa vidéo bi hmm. tey ñoom ñaar boo ci jël Ouzin tamit mel na nu mu war a mel macha allah góor yàlla la. dëgg la moom est-ce que tey Pawlish bu fekkee affaire yi day yéex du jar nga dem ci Ouzin. non oh non bàyyi rek ma jël Pawlish léegi moom bu dee nangu na mu naa jël di ma fomba sama tànk yi yooyu noonu xam nga. kan Ouzin. Ouzin na bokk waaw suñu tànk yi ñu toog nii table à manger yeeg yooyu noonu. Mm. waaw mu nekk suñu mbindaan daal. Ouzin nekk seen mbindaan. Ah oui yaa ngi Pawlish. Mhm. du nangu loolu. non dina ko nangu. dina nangu loolu mais gars yi lu tax ñu naan dañ lay may 10 000 problème lu tax ñuy wax loolu. Hmm. kooku dof la te man tamit dof la te ñaari dof mënuñoo ànd. duñu ànd kii dafa dafa dof dof bu kii la dof mu mature la te man nag dof. <laughs> dof immature ga. waaw moom mooy def immature. waaw mais man dof lan mooy mature rek immature. immature moo nekk nii ku wér. immature comme dof bu wér di dof dof lu. non xaaral ndey lan mooy mature rek immature nga ne immature mooy ku mature mooy mm. mature ak immature ma différence mature moi lan. Euh, mature et il est mature comme t'as dit et mature et mature ak comme si couvert Elle il mature moi comme si en couvert Lol, c'est sûr que oui c'est sûr que ndeyloo lii nit mën na ci teg lu bari lan mooy mature ak immature. immature moo nekk ku kii comme ça nii ku wérul ak ku wér. Ah, waaw waaw waaw. nga ne waxaatal. moo nekk ku wér. lan ku wérul immature. mooy lan yow ba tey xamoo fooy teg sa tànk waxal lu leer. ak ah, kon xaw ma ko ko. déedéet defal naa <laughs> nday nday nday waxal. waaw lii dernière question lay posé ci loolu lan mooy mature ak immature. wax dëgg yàlla. sama jàng sorewul. déedéet mais expliquer mais fi nga doon nekk baax na. Ah, ah, ah, déedéet parce que lii am na ñu ciy teg lu bari waxal. Omatir moo nekk comme ça euh, comme quoi comme ku kii nii comme ça ni koo xam te xel mi neexul. Hmm. immature moo nekk comme ça ku xaw a weer tuuti rek te wéragul. loolu waaj a wér te lii la. Eh. Sénégalais lii rek lañ bëggoon xam ko loolu la. waaw loolu la kon loolu la. ok lii la euh. ah. ok ah. tey lay dee mm-hmm. léegi nay loo mm-hmm. euh, euh, tey ji sénégalais yi say francais daf leen daf leen di rey mm-hmm. te nee nga jàng ba sem 2 sem ba sem 1 euh, ñëpp xam nañ ni boo waxee loolu te ñoom seen problème mooy ndey lan la mën a xalaatee ay sama mag bu gaañu est-ce que loolu amoon na wala amul tey loo wax sénégalais yi duñ gëm parce que loolu nga waxoon moo tax dëgg la léegi pour ñu gëm ne jàngoon nga ba sem 1 Mm-hmm. il faut que nous poser quelques questions ci wa quels sont les quatre points cardinaux les cardinaux la kii ni reprendre ma reprendre Les ma les euh, mm-hmm. nga tay dañuy dañuy dañuy mm-hmm. euh genn nga né sa mag dafa won Les nga ne les musul am sax mag Sénégal ñëpp xam nañ ni fu mu toll nga amut mhm. léegi nee nga dem nga ba sem 1 mhm. pour ñun ñu xam nak ñun dem nga ba sem 1 mhm. ben question la lay laaj non ñaar sax la lay laaj waaw léegi Ndeye Lo notre corps la bëgg nga rester ma oui loolu moom naa sawar ndax loolu luma luma lu ma kii ne la mo nek sama première leçon des classes Problème de des classes mooy notre corps notre corps comprend trois parties la tête le tronc et les quatre membres les quatre membres sont les leçons suivent <laughs> j'aime nday xaaral. benn question laa la laaj de. waaw dama ne nga retirer ma notre corps. notre corps. notre corps. trois trois notre corps. trois parties. waaw la tête. waaw le tronc. waaw quatre membres. les quatre membres mooy yan. Euh, quatre membres mooy nopp. waaw sont l'est nord sud. ani l'est l'ouest nord sud sa yaram bi. l'est nord sud non. nag mooy sédd. lii dana ko tuuse tuuti. du ko bi la ñuy laaj fan la de. sédd ndog la xanaa déggoo ñu koy wax ci tubaab déggoo ñu koy wax. lu ñuy wax. boo déggee ndog mooy sédd. <laughs> d'accord mais mais El Président beneen question bu ma koy laaj nag sa simple. Mhm. boobu moom man je sais ni loolu. tey boo ko trouvé Macky Sall dina la ko ba ci palais. parce que loolu képp ki Sénégalais war nañ ko xam. hymne national du Sénégal ah, ma bëgg nga jug taxaw nga ristel ma hymne national du Sénégal en direct o ah, nga toog eh. ba tey nii ngay nekkee à l'aise eh. donc o bëgg nga lancer message dama bëgg nga lancer message président de la république nga ne ko yaa ngi o hymne national du Sénégal eh. voilà waaw jugal taxaw nday nday é c'est important waaw nga sérieux o xool nga réciter hymne national du Sénégal. waaw. Fesveto vocola para felabala for la yolos alos le dante de la bouche Le dent de l'ancêtre les civales s'énervent, le soleil nom est l'heure, soleil son est espoir. Je mm. vous ferai, avancer après rassembler, frivre, mm. vronner et frère, et sur épaule, mais si qu'à faire, Sénégal de debout me -hmm. sur la main et les sources Il me sur la strève et les tiers Salif Africa. <laughs> non, mais, non, bi, je savais que tu allais trouver. Bi, je savais que tu allais faire. Bi, je savais que tu nga ko Hein? Ben, way lo sentir. Oui, rek la lii Macky Sall war na la ci mëna wo parce que lu toll sa hymne national nga jug euh, valoriser ko. hein ah, tay di politique ba nga ñew ban message ngay lancé ñu tëjee lolu ak ak projet yi nek sa kanam. Euh, politique ya nga ñew élection locale yi. hein ñu bàyyi coow yeeg yooyu nday fonko wax ci. ah may ñaan Sénégal politique yi ñew nek mbëkkante dorante <laughs> matante bu ñu bàyyi dara nañ jël ay ki di ko bëgg bëgg nañ mbëkk mi nañ dugg ci kër yi nañ dugg ci kër yi nañ jël ventilateur yeeg yëpp yóbbaale ca ger ga ok ah. loolu laay wax <laughs> loolu nga ci wax ok nday say projet lan la ay nga ci foos ku am kuy seen kër ku buur comme ça nii ku bëgg déguisé yooyu noonu dama woo ndax loolu dama cee ay dama cee jàng jàng naa ci def naa ci formation trois ans hmm. ay déposé yooyu noonu xam nga rek Muito fosse. Muito fosse. Logo dinheiro, mas daí faz errado. Do gutibito, ele fosse pentiria, fosse piria, fosse piria. Espera, fosse piria lá. Quando eu fiz perdi, perdi. Como não? Eu não. Nem é que eu Nem que eu Logo reclamam, liga, essa abinha. Logo, que você quer ser ganho. Conexão é porosa. lépp luy boucher daal nga dugg. waaw nañu boucher ndax ma xam nga dama am rabu ndox. <laughs> tam nañ nañ dinañ jot rek di mu boucher yooyu noonu. nday yow ko ambitieuse nga de. téye xale. téye xale waaw xale bu ci def lu yoon man nga pati la nañ ma jël nag. mais baa doo lekk lekk xale yi. Ah? lekk xale yi baa doo ko lekk. yooyu noonu ay piire noonu laa ko bëggee. ay la boo feebaree loolu lañ ko daal sexal. lu ci daal sexal. ba bañ am ñaata 24 heures piire lañ ma daal sexal <laughs> piire yi sa sama yaay man piire piire rek la ma daan sexal. ak yooyu noonu. non ndeyloo mais nday nday nday tey kenn moo la woo ci artistes yi amul kenn ku la ci woowagum xam naa loolu la daal di tëjee. Ah, artiste Sénégal ñan ñoo la ci woo di la ci di la ci félicité ak yooyu noonu. Abou ci kan Abou Cibolo. ci na sama fans boobu ba nga xeewee <laughs> yàgg na maa ngi lay noqale nag ca xeewee bi. <laughs> yàlla baax na. waa tous tasar comme yéen a bokk koñ. bu nga bu nga xewee ba woo nañ la pour ñëw ànd ak yow ci bés. ñooñu mooy mooy wàcckat yi yéen ñooñu ñooñu kay woo yàlla boobu mel ni ñoom. Ah. dañuy jonkat sama jonkat baaxul wóorul. jonkat wóorul. dañuy jonkat nag comme naan la ñuy def te loolu moom kiiwul. te loolu doxul doxul mais tey tey tey mm-hmm. nga leen nii. Mm-hmm. mais baa a ngi sóor yow. Mm-hmm. nday à tout moment mën nañ la wàcce de. ma ah, man nee naa la duma xeewi loolu moom dama koy wax fu ma toog man maay jabat police ma duma xeewi ma duma mas a mm, moo tax nga langal ko police yow kon yow police intérêt nga ko. non non yow da ngaa nopp police a xeewi. moo wax la dëgg nag ko yàgg bëgg. Mm. man dama ko yàgg bëgg te dama ko woon a bon naan tëdd di ko jëm maa ma su may tëdd nii nii su may xool su ma gisatul. moo laa daan toog dama daan dama daan jooy bay xëxët jooy bay xëxët ndax dama ko bëggoon man moom su ma amee stress moom wala may bëgg jooy wala leen mais teg son yi si toog daal di sàngu toog jooy sama jooy su ma paree daal def nii calmé ndaya ndaya calmé ma daal toog loolu laay defalee sax boobu nday ñu bala nday ñu bala nga tàggatoo maa ngi nuyu waa Sénégal du nuyu waa kii ni mais damay am benn message bu may lancé message bi lancé pour wax ne nday mhm. comédie rek lay def mhm. te daf bëgg naa ko ku ku ko jàppale bëgg na waa uh-huh. tamit bëggul ndey dafa nekk ni ko xam ñëpp la sekkal Yeah, ok bëgg naa ñu jàppale ma uh-huh. ndax xale laa uh-huh. c'est kii 18 ans laa 18 ans kese nga 18 ans laa du 18 ans wu Abiba yi ba <laughs> billaay 18 ans laa am 2003 laa xale laa te bëgg naa dugg ci milieu bi waaye balaa ngay dugg il faut nga am ku la jàppale waaw ok di leen wax ndey nag ngeen jàppale ko daal. Mhm. yaa ngi yaa ngi Instagram yaa ngi TikTok wala fan. may Instagram am naa Instagram mais tijjeeguma TikTok. tijjeegoo TikTok kon ñeneen ñi créer sa compte euh, ñu jàpp ne du yow. non non. fausse mm. compte la. fausse compte la mais tey booy dem bay waaj a créer TikTok di nga def live Instagram xamal gars yi ne ubbi nga. waaw dinaa ko def. di nga dugal foofu sa compte TikTok ah. Mhm, mhm. d'accord. c'est très important. Mhm. mbokk yi comme nu mu ko waxee rek wax dëgg neex yàlla. Mhm. Euh, mooy li may wax sànq ci ci nuyoo ba. Mhm. mature ak immature. ñun ñëpp a yem fa yàlla ndax ñun ñëpp ay doomu aadama lañ. soit ñi dañuy wàcce seen bopp rek tollu suuf. bëggee sénégalais yi tey képp ku amoon stress wala nga tëdd ci lalu hôpital. bu la seetaanee dina rey. Ah, euh, bu ñu déggee sa dernier message bi nga wax. ñëpp xam nañ ni macha allah nit ñaay la dara dalu la. mais nag dañoo toll ci jamono joo xam ne stress bari. foog ñuy reetaan loolu nit yi def comédie mhm. loolu tamit euh, wax dëgg liggéey la comédien yaa ngi fi di am seeni kër mhm. comédien yaa ngi fi di am seen i mhm. comédien yaa ngi fi di am soxna yu rafet ñii di am boroom kër yu baax donc yow tamit pour quoi pas nga nekk comédien boo xamante ni euh, te te te da nga ñëw ci loo boo xamante ni amul woon jigéen mi ay Pawlish Ouzin Keita ñi naanee amul woon jigéen tey nga ñëw nekk jigéen donc dangay dem semaine dafa am loo loo santé ci loolu dafa am loo ko man liggéey laa gëm. dama mm-hmm. damaa yàgg bëgg loolu noonu comédie. Mm-hmm. di leen wax nag li may def nii taxuma ñàkk fula. wala ñàkk fayda boo ma xoolee xam ne man ñàkk ku am fula laa ku am fayda la sama bopp. Mm-hmm. fokk yóbbu ma dara yóbbu ma. bien ok. Mm. c'est donc loolu loolu leer na. Euh, di wax nag <laughs> ah doo nuyu sa manager. Ah, kat may nuyu Evich Eva di nuyu toute la famille de Lo. maa ngi di leen wax nag delloo xaar leen ci leen di leen wax téléspectateurs yi auditeurs yi maa ngi leen di souhaité joyeux anniversaire à vous ok jeex na. ku anniversaire bi. <laughs> téléspectateurs yi ah loolu kii bi kii la di nuyoo tubaab. kon joyeux anniversaire à vous la oui. voilà joyeux ah. anniversaire à vous. suba ah, sukkul manager ñemewul wax. <laughs> mais mais elle préside di am mbégte contentement comme ni ko waxe sànq tout à l'heure di dalal ki nga xamanteni moy ndeylo mi nga xamanteni phénomène la euh, bu jugee ci euh, banlieue dakaroise bi muy way comme je l'ai dit tout à l'heure euh, banlieue bi yalla may na leen loo comme ñun kaw Kaolack rek machallah talent dafa nek ci ñun wax deug nak yalla non la nekkee ci wa banlieue bi donc comme nous ma ko waxoon rek fexé nañ ba tous tasar daal di dem seen yoon. dañuy mhm. fexé ba suñu ndeylo mi nekk suñu ndeyloo national ak international ndax amuñ woon ñu jigéen te man dama féministe de trop mhm. nday mhm. man ay góor rek laa doon gis te man dama bëgg jigéen ñi du prouver mhm. tey ay Pawlish laa doon gis Ouzin Keita bës bi di dem ci ñoom mais tey dama bëgg ndeyloo nga des bëgguma mu doon ne tous tasar ah. waaw di wax waa géeje waaye yéen ñëpp ngeen jàppale ko et wax na lu am solo di leen ci di leen ci ñaax bu baax sénégalais yi jàppale leen ko xale la 2003 la juddu wax dëgg neex yàlla bës bi ñëw na dal na ci kawam waaye lu ma ci gën a neex mooy mu ngi am maturité boo xamante ni ànd ak ki nga xamante ni mooy mhm. dal loolu tey loolu et puis xam àddina loolu affaire bi yégalu ko këfu ko donc ñu jàppale ko boo leen amee ay publicité seen place yi woo leen ko mu ñëw neexalal leen ko boo leen amee ay série yoo leen bëgg woo leen ko mu neexal seen série ba ci même sax télé yeeg rajo yi képp ko ko ci soxla rek mën nga mën nga ko jël mu toog neexal sa émission ba mu neex donc c'était ça euh, ci présentation bi Fifita Touré la reine di sin Saloum assistance bi Muriel Linda Mendy la caméra ba technique ba Maïssa El Prezi borom Thioker TV mbokk yi jërë jox di jox rendez-vous très bientôt inchallah